asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk yi suivre seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dikkal leen ci guddik ñaar fukkeel gi ak juróom juróom-ñetti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas di xul huwallahu ahad ñeenti yoon ñu bamtuwaat ko juróom-ñetti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas di xul huwallahu ahad ñeenti yoon juróom-ñetti rakan nag ñeenti sëlmal lay nekk ñaari rakan yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp koor gi di 5 juróomi waxtu ci fajar ba toftale fukki ak juróom-ñaar bu dee waxtu dog yi juróom-ñaari waxtu si ngoon bu toftalee ñaar fukki ak juróom-ñett ñi ngi leen di jox dig ba suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. madadi